dara Ninki Nanka capitaine Cheikh Tidiane Niang mooy Ninki Nanka Lamine waaye kenn du Cheikh waay eh door ko mu daanu eh Cheikh Tidiane Niang eh Talla Ndiaye door ko mu daanu ci maam Jaam Babacar yow da ngaa bëri si woon loo def si woon man. ñaar yëpp bëree xeex lépp laa indi waxoon naa la ko su xeexee ma duma ko fu bëree ma daan ko mais li nga ko dóoree mu daanu lan la ah liggéey rek liggéey rek dama daas sama loxo yi dama leen daas yokkoo ci dara loxo yi <laughs> dama leen daas suur leen na yokkoo ci dara ci loxo yi <laughs> dama kaa suur bii dañ koo suur goosee bi baaxul amee dem na ñëw ñu bëre moo nekk muy tegu gargamboose na ñëw ñu bëre ñoom maam bala ñoom ñoom ñoom kii booy ñaan numéro 2 na ñëw ñu bëre Cheikh fan la jànge xeex doo dooraat. doo dooraat laa jàngee xa. door dooraat déggoo tur bi. te kii door lu ko moom benn yoon lañ ko door. Babacar leen ma jox sama morom yi il est temps ma bëre grand combat. di sant ñi ma gër sant ñi ma jàppale si combat bi yëpp waa Espagne xaalis bu bëri leen ma jox maa leen di gërëm di leen sant bu baax a baax suma mbokk yi nekk Espagne billahi leen di gërëm sama grand bi maa koy nuyu bu baax ma na ma xaalis bu bëri kii otoom laay dugg chaque jour waaw di gërëm sama staff di gërëm sama fans club bi yëpp ah ñaari mbër yaa ngoo mu taxaw arbitre bi di woote laa duma féete gauche jabel bu yoof à droite yoof la ak parcelle démb yoof la woon ak bawal tey yoof ak parcelle mu mel ni temps yi waa yoof nag seen yaram dafa tàng waa ndax am na dem walla boog moo jë dem gis nga ni mu def këwel waaye kii nga xam ne mooy gin tamit am la mu def tonnerre de avant yi woor ñu ngoo nguy defaru arbitre yi taxaw combat jabel mi nag wala combat laadum daaw la woon moog booy jëlee ko waroon bëree mu amee problème ci wàllu bët maanaam wéradi ñu dàq combat bi jag sa ko tëggoon moo tax ren la ñuy doog a bëree combat bi mooy combat bi ci géew bi Talla Ndiaye. arbitre suuf la ne ndeysaan Jabel Yoof at na. laadum ak jabel ñaari njool indoo la a dóor mu xañ ko laadum indoo lay serse jabel xañ na ko ko Matar maa ngi lay bëggee ci loo nekk yaa ngi am jàmm na ko xeex daje roofoo a kaw oo oh, perkir ya dal na laa yee ay siggi waale jamel waaji siggi waale na ko indoo la ndeysaan in doole ko bëgg a dóor jamel tey nga taxaw dóor mu daan dina fa am di wala. daw na jël. droite ba bu day dóor. mu nga épercuté. jabel a ngi taw de. jabel foo jëm. jabel taxawal. laadu ma koy daag. ñaari njool lañu. bu xeexee foo mu metti. arbi na taxawal jabel. jabel taxawal jabel taxawal bakkan baa ngi nàcc ba tey a ah wéy na ko arbitre soufflé waat na de Laadou ma ko topp rek Indo dafa sori daw na jël ko mu tëru ko daje moom Jabel da doon jëli Laadou mu tëru ko Hypercule la bëgg a dugal mu bañ Jabel benn loxo góosam jàpp na Laadou jàppul dara Laadou la mën wan ginnaaw. moo yor ngeen lu weex li moom laadum dalay xar dalay daan daan na la aaway jabel daan na ko jël ba mu ko daana rëy oh! daan nañu jabel daan nañu laadum Pape Mbaye koy fompal yóbbu na ko Ardo Daak Talla Ndiaye jàppal ne tey la woon le 10 juin ah et ce jour mi ma Mar Diop di tombé jour lundi di jour férié ki nga xam ne mooy Jax production woon ñu fi. ci grand combat boo xam ne moo doxoon ci diggante jabel bu yoof ak ki nga xam ne nii mooy laadum bu roog énergie boo xoolee ci biir combat bi nag kii di laadum jabel mën na ko ci xeex bi ba pare daan ko ndax yóbbu na ko ardo ñaar yoon ñu bëre moo xar ko daw kottu ko daan ko muy jël bu leer mu mel ni ki temps yi daal yoof moom macha allah ñu ngi ci yoon wi ndax heure bii démb kii di ja daan na fi kéwél te balaa ñuy woor ki nga xam ne mooy gin bu daan na fi tonnerre bu ndakaaru mel ni que temps yi daal yoof kon ñu ngi ci aw yoon di leen dox dig daje rek beneen yoon rek ci Leewtoo TV 100 pour cent lamb la Babacar la ak Talla Ndiaye di balu ñëpp ak di bal ñëpp ak di ñaanal ñëpp jàmm di wax ne Talla Ndiaye sunu Sénégal gi jëm Coupe d'Afrique yàlla na indi kan bi coupe bi yàlla na ñëw senegal loolu la ñuy ñaan ñun parce que nag ay sénégalais la ñu Talla ba beneen yoon.